asalaamaaleykum wa rahmatulah taalaa wa barakaatu mbokk yi gannaaw buñ leen nuyoo ñu ngi leen di dalalaat Kibaru Network seen mbokk Pamané moo leen fi nekkal ñu jël xibaar si euh, Pa mbaw Mbowe Pa Modou nekkoon spokesperson APRC Noto Alliance moom mooy wax si euh, jigéen euh, bu nga xamante ne ñëpp xamee nañ ko di Awa Sanyang biir APRC Pa Modou na ko yoon te bi kaala ka boo xamante ni. indi ñu indi leen ko te dinañ ci gën a dugga xuus si gën ko yaatal eh, su ko defee suñ delluwaatee eh, gën a waxtaan ak yéen ci moom le ñu leen di nuyu ku nekk turam ak santam di leen jaajëfal eh, seen mbokk la Pamane jërë ngeen jëf si seen dégluwaay. suma audio yi nag boole waale ko si suma sama tontu de nga boole waale si suma audio yi su ko defee nit ñi xam ne man lii laa laaj questions si laa laaj waaw su ko defee. nga xam ne di ko mun a eh, di nga soo ko tontu nit ñi dinañ xam yow li ma tontu loolu lan la waaw li nga rëgi rëgi di naaw di tobaka dal dama ne pour nga tënkum fii kuy lappi lappi nañ la ne fii nga jaaroon ba ngaa ñëw bu barki démbaay ñaay suma kanam la loolu whatsapp amutoon sax jamono bu vaay bala waaye aw sa na nga fàtte ne yow groupe boobu sax yaa ko tas yow ban façon nga bugg a man sax nga bugg a baabili man sax ban façon. ban façon ak yow lan ngaa def si parti bi loo xam ne nit ñi nekkul di ko def lan awa yow kafoo di nga amee di yow yaa kafoo bi yéen ñëpp a di contribuer waaw amuloo dara looy contribuer loo xam ne waa kafoo bi nekkul di ko contribuer kafoo ñoo di contribuer comme yeneen kafoo yi ni ñoo jëlee di contribuer yeneen euh, euh, forum yi tam ñu nga koy contribuer seen quota di dimbale parti bi. waaye loolu taxul kenn ku si nekk bi know because of ne yaa ngi def lu rëy da nga war a taxaw di génn di saaga nit ñi di saaga nit ñi kërëb kërëb di wane tànk bu dog yow kan nga gën a réew awa yow gën a loo réew kenn la yow yaa gën a neex a xas laa si àdduna si yëpp so to for you to pour ma advice la nag asuma sista ah dama bugga pour nga lem sa geen gi nga toog si nga bàyyi saaga bi nga saaga nit ñi ak xaste yi nga xaste parce que yow yaa gën a ne a xas because xasit nga yow awa xasit nga bul rusloo sa yaay waaw bul ko rusloo bul tax àdduna si yëpp xam sa yaay bul tax àdduna si sa famille bul sax àdduna si yëpp xam yow sa papa mooy woon kan ngay taxaw di dóor sa dina man doomi tay man suma papa mooy tayga tayga jaay sangara be daanu dee sangara awa yow li nga toog di tumale nit ñi li nga toog di wax si nit ñi sa papa moo ko njëkk a def sa papa moo njëkk a am baa biir bakaw janxa bu fa naan sàngara góor bu fa naan sàngara bakaw sa papa moo ko waral moo jaayee moo fa ñëw njëkk a ibi baa di jaay sàngara awa yow war nga wax nit waxi sàngara awa yow war nga wax nit war wax nit affaire nukante sa papa si loolu la amee di nukante nuka sa yaay ci baa la la wax ni ba biir gusin la parce que musu koo takk gaay musu ñoo sëy soo paree nga nag nga wax ñu yow sa yaay kan la moo sëyal kuy jëkkëram naka la tudda ah aduna si tamit yëpp déggalul ndegam nga ne yow i baa futu yow sa yaay kan mooy papaam kan mooy jëkkëram bu rusloo sa famille every day nga teg sa sa yaay gàcce every day nga teg sa famille bi gàcce di nganda ngandalu di lefent awa yow doo sarap ndeyam doon nothing you just a mere girl you know fuck by somebody koo xam ne mun la fa lu tax mu bàyyi la tubaab nga ñu isil ko doom bu ñuul xamul tax foo jëlee uh, jinne boobu tegal ko ko doesn't know awa loolu moo sa misère boobu noonu yow bul ko isil si nit ñi nit ñi teguñ la ko nit ñi teguñ la si li nga nekka ñun duñ cause bi yow you are the cause sa family sa papa waaw you understand what I'm saying so dama bugga pour nga lem sa génge na nga toog si man te nga bàyyi ma man si jàmm ak salaam waaw man na bu ma la man bugguma laa nduka awa aw ma benn feeling pour yow dama la xoolee comme suma raka comme suma sista ku ma bokkal ndaya bàyyi man noonu la la Eva Musa jàppee waaye yow jàppee wuloo ma broda waaw man ah, well anyway sax soo ma jàppee broda tam it doesn't matter because yow sa broda sa danga leen a saaga ndey sa yaay sa yaay sa danga ko ndey waaw so therefore yow kon there is no need yow koo téye broda sax amul benn problème Babili man sax bi nga ne moom nga bëgg nii sax yow na ban façon bëgg nga bëgg Babili man sax yow ku bëgg Babili man kuy contribute pour liggéey ci on the side of Babili man sax taxaw nga saaga nga ko ndey pour lan yow yaay kan bay saaga nit ñi ndey nii awa who are awa su fekkee da nga bëgg a jëlal fi dildo vibrato mu ngi fa mu ngi foofu noonu yee maa na ne drowa jëndal vibrato nga ñëw di ko plok sa bajo bi la laa wax nii ngay daanu ndax nga may nit ñi jàmm awa mun loo tere nii ñu nukkante dañoo nukkante ba neex la la wax waaw dañoo nukkante ba mu neex awa loolu mun loo si dara yow nukkante te lañ la juree tam te yow si noonu nga judo si baa ci baa lañ la juree yow laxal sa yaay ci baa daaj ko laa la wax ba biir lusin la so yow kan nga tere dajante yow kan mooy sa morom sax nga ko woowee dajante awa fii ñëpp a ngi dajante de ñëpp sa sa ñëpp a ñëpp a ngi ñu ngi dugg si kuy def seen ay affaire soo fa bëggee taana Pamodou Mbow nag ne waa Pamodou eh, eh, man man Pamodou Mbow man nu ko góor de man du ma góor jigéen waaw te yomb ma tam waaw tollooguma foofu. tolloguma fu ma soolee Viagra mbaa fu ma soolee eh, di di di naan si ga xaabi bagage yi ak yooyu noonu déedéet man nga romb tël ma mu taxaw waaw nga yii laa la wax ma jox la ko barke yàlla yes awa waaye doo ko mos yow doo ko mos laa la wax fuck you suck my dick waaw suck my dick awa Sagnang yow who lan nga foog ne yow loolu nga waaw yaa ngi foog nag ne yow Finland bi nga nekk noonu tax na ah, because of yaa ngi Finland rek ah, nii so therefore yow mun ngaa toog rek sa biir néeg nii def lu la neex wax lu la neex saaga awa xamuloo ne Finland bi nga nekk noonu nit mun naa ñëw ba sa néeg foofu ñëw nu ko def la lu garaaw yaa sa mumu boobu nekk si biir kër gi nga ne doom la xam nga loolu you don't dama bugg ngay nga emal sa bopp laa la wax nga jéem a jéem a xuuf sa laaf xam ne booy fii mënuloo fee sax wet mbaga ba teg ko fi ba naaw mënuloo ko doo plain nit nga te jigéen nga nit ñi nag dañuy respection jigéen yi nit ñi dañuy respection seen yaay yi respect seen sisters yi seen doom yi looloo ta duñ génn a taxaw di wu defante jigéen di wax di kër kërëb kërëb di tuba ko dal non duñ ko def waaye ay wis na awa yow góor nga woon suma morom nga woon waaw ndi kon di nga xam duma la yónnee inbox message non I will not damaa ñëw ba Finland ndu ko sande yi waaw ba am na si yëpp xam ne man maa def loolu ma delluwaat dama dem toppatoo sama soxla waaye nag Uh, I hope rek ne um, you will answer my questions I hope tam rek ne whilst answering my questions di nga boole waale suma audio yii nii si si tontu bi su ko defee àdduna si yëpp xam ne man maala laaj questions yii nii su ko defee nga war koo tontu pour àdduna si yëpp dégg awa kan mooy sa papi jëkkër sa yaay sa yaay kan mooy papaam ay kan mooy jëkkëram waaw nga ne Iba Fouta Touré Jumaale la ba ba ba ah, yow kuy sa papa kuy sa yaay jëkkëram kan la futu kan génnal nga wax ko aduna si ba pare nga kontel ñu sa famille comme man ni ma la kontelee Pa Modou Mbow Leet Fatou Mbow Omar Mbow ak Xadijatu Mbow léegi nga génnal nga kontel ñu yow ak seen santa dégg please su fekkee ne nag defuloo loolu kon awa damaa xam ne yow yaay di biggest kawat yow yaay kawat bi nga xam ne danga toog laaxoo sa sa whatsapp pour mun a toog di def ay ñàkk a fayda yoo xam ne yaa ngi ko biisuloo ko ci nothing lu dul wéet amuloo ko waxal amuloo gisuloo góor du tubaab du ñaar du du jamaican du benn du black du gambian du nothing dara yow ñëpp la bàyyi ñëpp kenn bëggut a ama yow affaire awa nag loolu moom moo egg sa bopp bi waaw sonal la waaw ak sa papa li mu doon def dimba di ko def fii si biir dëkk bi fii di yàqa nit ñi góor a jigéen góor a jigéen jigéen ñi ngi leen téye bakaw li leen xasat leen fi sàngara nga danga naan ko sa sa papa tax ñu naan naan sàngara parce que moo fa ibi baa sa papa moo njëkk a ibi baa bakaw di jaay sàngara waaw ku fa naan sàngara sa papa tax waaw bàkkaar bu mu munti def tam sa papa am na ci looloo tax ba moo bala moo dee daf doon puupu di sebenu di daanu si mbedd bi awasaan yoo da nga am loo la waa nit suturalal sa boppa suturalal sa boppa awasaanan suturalal sa boppa te nga bàyyi nit ñi si jaama nit ñi parti parti li nga am si pati bi la nit ñi am si parti bi as a matter of fact li nit ñi di def si pati bi awa defuloo genn wàll am parce que yow gémmiñ nga am rek taxaw wax su time contribution jotee si nga ne contribute kafu bi yëpp maa ngi leen a gërëm di leen santa ñoom ñëpp gën a kaf contribute pour defar pour euh, euh, euh, dem kanami parti bi waaw waaye su passé loolu yow awa lan nga di def as the diaspora woman mobilizer yow who are you mobilizing kan ngaa mobilize yan façon activités nga di organise foofu yoo xam ne nii pour pour gaaral nit ñi la apart from saaga ndey ban façon activité moom nga di organise foofu laa la wax ci diaspora bi apart from yow kafoo ti kafoo what are you doing ci parti bi awa nit ñaa ngi def lu raw loolu te ñu ngi ne teg am na ñoo xam ne ñu ngi contribute moo daan li ngeen a contribute sa te ñu ngi noppi waaye dañ ko def ngir yàlla ngir bugg a bi ngir bugg Babili Mansa ngir bugg a parti bi dem yow nag continuer la ak sa saagay de even though Babili Mansa advice na ñëpp waaye yow yaay xeeri diggi état bi yow moom moom yow mënuloo dara loolu saaga yow soo saagul rek doo effectif waxtaan sa mënuloo ko waxtaan sax awa yow mënuloo ko pour waxtaan ni créer fond ni jóg nii ak yooyu loolu awa mënuloo ko yow li nga mun mooy saaga yow loolu nga xam sulaar yaa no problème go ahead waaye di nga mit sa match sa doomi bàjjen di nga tase moom awa mu watal la sa cooka bi yëpp laa la wax ni ba pare jox la ko nii nga téye ko wala àdduna si yëpp di ko gis loolu moom ma la ko wax ate bàyyi la soo bàyyiwul li nga nekkee soo bàyyiwul li nga nekkee di weer sa yaay di weer sa papa di weer sa famille ah jaxarang billahi wallahi taala di nga ne xaw ma ana paamurum boobu waaye waxoon na ma lii waaw soo man maa ngi déglu sa ansa yi sa tontu yi maa ngi leen a déglu nga awa waaw if you are brave enough laa la wax de su fekkee ne yow nga ne yaay awa tay ah, nga saañaan ah nga boole waale suma audio yi suma ñetti audio yi nga boole ko si tontu bi ak liñ maa wax yëpp nga boole ko nit ñi dégg dégg nga awa sañang awa tayga sañang waaw awa awa yow naka nga def awa mbaa fi mu nekk nii nag sa xol bi fiix na ma ne ko léegi fi mu nekk nii mbaa sa xol bi fiix na kay Pamour abal na la fi mu nekk nii sa exécutif bi ma ne ko exécutif bi nga fay ñi nga employé di leen fay di wax lu la neex di def la neex ma ne ko mbaa léegi sa xol bi dina fiix ah awa awa yow nag <laughs> mu ne ko yow nag dama waxoon ne la tontu waaw waaye foog ma wax la sa boppa parce que yow awa yow xamuloo sa boppa looloo tax parce que awa su fekkoon ne yow xamoon nga sa boppa te yow xam nga naka nga juddoo ak fi nga juddoo ak fi la sa yaay biiree waaye awa yow waruloo wax kenn dara awa yow xasit nga awa yow yaa gën a neex a xas Gambie man the whole wide world man gisuma kenn ko xam ne moo gën a neex a xas comme yow awa Taiga Sanyang awa yow sa moo njëkk ibi ba um, uh, naka leen ko waxati uh, bakaw di Taiga moo njëkk ibi ba mboolem kuy naan sàngara biir bakaw fi mu nekk nii muy góor muy jigéen ci baa boobu la ko naanee sa papa moo naan loo baa bakaw yëpp sàngara including moom si boppam waaw ba nga xam rek ne moom ba moo balaa moo dee sax yow yow xamuloo sa papa yow awa yow xam nga sa papa naka la dee su fekkee xam nga ko ah di lapar lapari si mbedd di daanu si mbedd yi laa la wax ni booy weñ yi di puub boppam di seben boppam weñ yi toppa ko awa awa yow warloo wax ni kenn waruloo wax kenn dara yow da nga war bokk si ñuy tëj seen sar yi waaw yow si ñooñu nga war a bokk yow waruloo bokk ñu kuy toog di wee wee di wax di wax di wax di di jóg di furi dina di yuuxu di tubaka dal suma yaay dafa sëy mbaa fututale awa ngay rusloo sa yaay si kanami nit ñi yëpp awa yow sa yaay kañ la mu sa si sa yaay si baaleen ko biiralee di da nga fàtte yu muy yow tayga sigi sa ba ba ba ye papa bi fofobakaw foofu fofulen birale sa ye yow mooy awa yow yow sa yaay musta sey awa so so taxawee nga ne mbaa fututale dangaa duul dangaa nduka sandey awa dangaa duul sa yaay musta sey yéen five yéen seven seen famille kenn bokkut santa awa kan mooy sa jëkkër yaay sa yaay jëkkëram kan la naka la tudda dama bugga sa bravery ah sooy tontu oh, audio bi nga boole si wale suma bos bi de nga dugala si wàlle comme ni nga koy ni nga defee rek nga nga dugalale audio bi nga nit ñi déggal li ma la wax yow xam nga man dewuma si plateforme man maa yow waay wax directly waaye dama bugga soo ma tontu nga génne wàlle audio bi itam su ko defee ñoo xam ne man maa la laaj question bi awa sa yaay kan mooy jëkkëram awa da nga fàttali ne ma dama dee dem seen ah da nga fàtte loolu I go to your house I sit down with your mom awa yow da nga dee saaga sa yaay ndey yow da nga dee saaga sa yaay yow yow ko saaga waru la naxari man moo tax li nga saaga yëpp li nga wax yëpp man musuma naxari because of sa yaay mu ne yow da nga ko dee buddil ndey yow soo na la jigal bu ma la déglu sax parce que noonu nga mel ma ne waaw ah mu ko ndegam kuy ni kuy kay kooku foog ma ne na bàyyi ndey jàmbur <clears throat> te awa dama bëgga pour nga seetaat sa bopp bu baax a baax a baax a baax waaw yaa ngi nii jur moomu waaw lan out of desperation because of sa sa jikar fii mu ngi la bàyyi awa dem taka sa cousin mu ne sa balo bi neexut mu ne sa caapa bi neexut sa jikar otherwise nga génn tam nga wax nit ñi lan moo tax sa sa jëkkër bàyyi la fii balaa ngaa tukki yow Awa Sané takka sa cousine sa fausse cousine sa jëkkër takka ko awa loolu moo la dugal si yëfi tukki naaw di takk tubaka di loolu yow awa li nit ñi tegaluñ la ko kenn tegul la ko yow yaa ko teg sa boppa seen famille la from ni nga juddoo la from sa papa la ñëw si sa yaay mu transféré ci yow waaw so dama bëgg pour nga xam nga lan mun ngaa continuer nag di def li nga def mun ngaa continuer tam di nga wax li nga wax waaye pour advice la rek comme ne ma la daan advice démba awa nga def ndànka parce que APRC yow da nga ñëw fekk ñu ñu ngi liggéeyal Babili Mansa bi la Souleymane Singul Niasse di indi APRC UK chapter te ñu laa tànn pour def la ciyaa ledi man maa Souleymane Sengul Niasse ñoo doon liggéey da nga fàtte ne sa position boobu noonu am na ko ko amee woon bi management boobu mu ñëwee ba dem ba ah, branch of tudda UK branch ah, awa si leen la isi di isi sol ba def sol ba chairman yow ñu def la caay ledi man maa Souleymane Sengul Niasse ndiggam ñun bugguñ place ñu jël PRO ak assistant pour ñu mun a amee làmmiñ bi pour ñu mun a wax ñu bàyyee leen yéen responsabilité bi awa ah yow time boobu mosuloo gën nga wax mosul mënuloo woon a wax sax di gën a taxaw di wax mosuloo wax fenn Souleymane la doon téye di la coach di la jox ay programme di la jox activité waaye xam nga yow lan mooy sa problème yow da nga xemem da da ngaa gis góor nga nopp ko ba dof bés bi Souleymane am isee yaama di ko jox programme bés boobu nga taxaw nga saaga Souleymane Ndeye tegal ko bërsi dem Facebook live because yow da nga foog ne Souleymane daf la nopp Souleymane nobul la Souleymane rakala sista la la jàppee comme man ni ma la téye rek kenn suñu nobul la awa now this is your problem this is your problem yow yaa ngi toog di xamam xamam góor yi rek aw man nag su ma dajante su ma nukkante awa awa man du ma yoom de man du ma yoom te man du ma di nukka góor duma ma batimaan man jigéen laa dee nuka moo tax am five doom five te awa ma wax la lena man suma famille hmm? Pa Modou Mbow late Fatou Mbow Maymuna Mbow Omar Mbow Hadijatu Mbow waaw léegi man na ma bëgg tam sooy soo ma tontu nga liste yow sa famille xam nga ñun santa ñun ñoo bokk a santa ñun ñëpp ñoo bokk <laughs> a ndeebaay dama bugga pour nga def di sëyam pour àdduna si yëpp xam ne yow danga nga du ko sande yow Ibaman Futu awa Ibaman Futu yow ay far la doon am ni ko nu ka muy biir di wusin moo tax yéen ñëpp ku si nekk santi boppam nga am am ngeen lu nekk Ceesay lu nekk ngeen am Sanyang lu nekk ngeen am foofu seen famille génnal nga wax sa famille yëpp naka leen tudda ak naka lañ santa man wax naa la suñ bos Fat leet Fatou Mbow ki toppa si man Maymuna Mbow moo toppa si kooku Omar Mbow moo toppa si kooku ba pare nga am Xadijatu Mbow génnal nga compté yow seen famille am na si yëpp xam ne yow da ngaa dugul sa yaay musta sëy awa <laughs> ok so pour nga understand ko noonu man nag man awa man man de xanaa ba yàlla di jël suma cër yi waaw waaye awa man damaa nukante xam nga yow moom amuloo góor bi umuj balaa umuj di juddu si nga si nga gija nu si nga gija daanu loolu mooy sa problème loolu dafa bokk tam si sa problème because of yow yow ñuy nukkante rek yow ñu da nga am problème si loolu ñow nit ñi war ñoo nukkante awa ah, yow yaay kan ñu nukk sa papa nu ko sa yaay ba nga juddu yow mbokk yi ñu ñoo déggal lu Pa Modou wax ah, ñoo déggandoo lu Pa Modou wa si Awa Sanyang ah, ñu eh, taxeeru lekk xaaraat beneen épisode bi nga xamante ni moom la ñuy si ñoom ñu Ida mu jógee ko waati Pa Modou wala Awa Sagnang di ngeen dégg lépp loo xamante ne loolu la Awa Sagnang tamit tontu eh, di leen di gërëm rek di leen sant di leen jaajëfal bu baax su seen dégluwaay seen mbokk Pa Mané ñu leen di wax rek ngeen continuer di subscribe te ba pare di share suñ content yi social media eh, mbokk la Pa Mané di leen di jaajëfal bu baax jërë